cheikh di suñu sëriñ ziar ko maa ngi laa ziar Cheikh Oumar waaw maa ngi ziyaara. yàlla na ragal jaati Oumar la rek Cheikh bi doy na. macha allah seen <laughs> Cheikh ñu ngi ziyaar. ni yàlla na nga ziyaara alhamdulilah aouzu billahi mina sheytaani rajim. Mhm. bismillahi rahmaani rahim. wallaahi ndeysaan. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din mhm. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mhm. ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim. ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin amin. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم rabbi yi sa sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wallahi ndeysaan yaa ngi la sayx yow dañ naa bi xaaral wax dëgg ma taxti fii ma nga taxti dana bi sawar mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur Dakar TV mm-hmm. eh, di leen nuyu ci góor ak jigéen mm-hmm. nuyu bi ñu ciy jiital kilifa yi nga xam ne ñu nekk ci islam bi ci réew mi di ci teg kilifa aada yi réew mi mm-hmm. di nuyu sénégalais sénégalais su waaye mën a nekk ci biir eh, ci réew mi ak ñu ngi lay jox loxo islam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di la di ci nuyoo bi. Boubacar Diallo Boubacar. Seydi Boubacar ak euh, Seydi Saxit. maa ngi lay maa ngi mbokk mi. Cheikh Fall. alhamdulilah di ñaan yàlla defal ñu tawfeex jotaay bi. tàmbale ko bisimilah ci alhamdulilahi rabil alamin. jërëjëf euh, bi mat na matala na. xam mm. ñu bàyyi la yow naka nga jàngatee. yow lan nga yoroon tey loo xamante ni balaa ñuy dugg si émission bi bëggoon nga ko jàmbatu wala nga woote ci fàttali ji. alhamdulilah. Mm-hmm. Euh, fàttali gi lenn la rek mu ragal yàlla. Mm-hmm. Euh, delloo si xel yi. Mm-hmm. xam ne lépp lu ñuy xëccoo am na ñu ko xëccoo woon bàyyi ko fi def. àddina lépp lu nit yor. ci loxo la ko jëlee. te ka koy yoroon foogutoon na dana jóge ci moom. muy pouvoir bi muy opposition bi fu mu mënti doon nañ bàyyi xel xam ne àddina bii ñu nekk mhm. àddina buy jeex la mhm. ñoom balaay àddina di jeex mhm. ñoo ko fiy jëkk a jeex actualité bi sénégalais yépp am mooy ray na fen na jël na noot na tooñ na jalgati na loolu la ñëpp di dégg am na ñu nekk fële ca ruq ba ñu baax ñemetuñoo wax ñemetuñoo sëqët ñemetuñoo wane seen baax ñemetuñoo wane seen xam-xam ñemetuñoo wane seen njub boo ko bëggee ñu jóg taxaw ne du fi amee mm-hmm. bu ñu wëree ba sonn benn mbaax wala genn sikk mm-hmm. amuñ ko ci yow mm-hmm. ñu ut ay nit mm-hmm. ne dem leen ci moom ñu am sikk buñ ko mën a noppiloo wala buñ ko mën a yàqale buñ demee ba àgg ci réew mu buñ de réew bu demee ba àgg foofu lu lu mel ni jotaay bii da ciy baax ñu xam ñu ràññee ñu toog delloo si at xel yi ndax doomu aadama dafa baaxoo di fàtte mm-hmm. nit dana xëccoo dara ba mu jaral ko bakkanam mm-hmm. waaye su amoon aji fàttali mm-hmm. mu ne ci wetam fàttali ko dana am amaan na buy xëccoo la muy xëccoo dana rafetal xëccoo bi loolu laay joxe ci waxtaan bañ dugg ci thème bi incha allah bàyyi loo xel ñëpp incha allah seen i jikko la ñu tàmm boo seetee ñun ñoo ni bindoo tamit ñun réew mi puisque ku ci nekk ci ñoom ci biir kër nga génne waaye boo seetloo léegi liy xew ak ni réew mi di xalaatee daf ci bari ñu bari ñoo xamante ni dañuy dàq nag jëf yu ni mel boo seetloo ci même ba ci vote bi booy natt ni sénégalais voté di analyser vote bi dangay ngay seetlu ku jóge woon fii dem fële sénégalais dañ ko sanctionné. wane ni ñoom kat dañu bëggagul kuy sol yére yu bari wala kuy yor couleur yu bari mais ñu seetlu ne terewul ba tey gaa yaa ngi taxaw fa ñu taxawoon di def lañ doon def di naxaate yow tey nooy jàngatee naxaate boobu nga xamante ni dafa mel ni population sax dafa raw politiciens yi si côté boobu noo koy jàngatee. alhamdulilah loolu mooy wane ne sénégalais yi ay boromi xel lañ. mooy wane ne ñu ngi doon nelaw waaye benn benn ñu ngi commencé yeewoo. te population bi commencé jëm ci côté mature. Mm-hmm. nit ñi ñu ngi commencé xam nga nit am na waaye nite moom lañ soxla ci nit doomu aadama yi ñu ngi commencé sénégalais yi ci boppam ñu ngi commencé comprendre monde politique bi mm-hmm. bu njëkk ba da nga doon nekk niti kaw mm-hmm. boo ñëwee ci taax mm-hmm. ñu am bët bu ñu lay xoolee ne kii waa kaw la wala nga bokk ci population bi nga ñëw ci tere politique bi ñu am bët bu ñu la xoolee léegi loolu boo xoolee bu ñu commencé disparaître boo liggéeyee dëkk kaw ga boo ñëwee kenn sentir sax même kër gi nga ñëw duñu sentir sax ne kii ci kaw la liggéey boo boo boo nekkee ci ci ci ci terrain politique bi boo ci nekkee ku tàmbali boo ci nekkee ci anciens yi boo ci nekkee ci ténor yi du feeñ mm-hmm. lenn moo ci xaw a am différence mooy ki ci gën a euh, ñeme wax ku ci gën a am say-say mm-hmm. léegi dafa am benn feebar mm-hmm. boo xam ne Sénégalais yi dañ ko war a teg jàngat ko mooy su nit ki bëggee ñu ñëpp tourner seen kanam jëm ci moom daf leen di jaral lu ne te duñ ci jombale seen bopp ci dara am na ñu koy ooyee buzz am na ñoo xam ne dañuy nekk ci moment crise boo xam ne dañuy nekk ci voie de voie mm-hmm. bëgg a dem mm-hmm. te xam ne seen carrière jeex na mm-hmm. duñ bëgg duñ bëgg a dem mm-hmm. dañuy fexe contradictoire ak seen population mm-hmm. pour ñu wax jëm ci ñoom mm-hmm. te géopolitique bi dafa am communication daf ci am solo ñu saaga la ñu tàgga la yépp daf ci am solo mooy nit ñi nañ xool envers toi ñu xool jëmale ci yow te ñuy def politique dañuy dem ba xam ne dañuy mën a capturer mémoire sénégalais yi dañuy mën a xam ne bu ñu laalee fii ñépp dañuy tourner jëm ci ñoom ba nga xam ne léegi ku bëgg a nekk président da fexe daf tout ba victimisé wu. Mm-hmm. ñu yërëm la soo jugee ñëpp jóg topp ci yow. Mm-hmm. ki la gaañ ñëpp mere ko. Mm-hmm. kooku dafa victimisé wu comme dañ ko gaañ. dafa nag damay jàngale. wala damay fàttali. feebar bi nga xam ne moom nga ma laaj. falaa jëm ndax booy faj góom. da nga koy xolli ba mu leer. wala booy jam jëmbat. nga dem ca ren ba. ren ba nga gas ba mu xóot nga suul ndax li ngay jëmbat mën a mucc. Euh, loolu laay jàngat nii pour wan la mhm. yi dafa am benn benn baax mhm. boo xam ne moom la sénégalais yi jikkoo mhm. mooy sénégalais buggul kuy fen soo fenee dañ lay sanctionné ko que ça soit euh, opposition wala au pouvoir bi soo fenee dañ lay sanctionné le cas de Pape Diop suñ ko jëlee comme exemple ak le cas euh, suñu maam Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dafa nekkoon ci pouvoir bi mais bi mu defee lu contradictoire ak idéologie Sénégal ak yaram yar Sénégal ak jikko sénégalais yi dañ ko sanctionné àddina bi yëpp teg ci seen bët pareil Pape Diop ci euh, opposition bi la nekkoon tey képp ku nekk ci opposition bi d'accord wuloo ci point de vue bi nga xam ne moom la def soit bi mu def am na mille am na mille pour cent am droit def suwaam parce que lu tax mooy dañ koo dañ koo jël yóbbu ko ci urne yi tëral ko jël photom def jël yeneen photo yi teg sénégalais bi ñëw tànn photo Pape Diop am liberté totale cent pour cent pour def choix ci tànn photo Pape Diop dugal ko ci urne bi moom mooy Pape Pape Diop mu dem ba fu ñu koy waxee ne soo ne waaw mu baax soo ne soo ne déet mu yàqu kooku moom may Pape Diop pouvoir boobu mm-hmm. mais bu ko fa romboon ci ci ci ba ñuy def choix yi mm-hmm. moom du bokk ci ñi nga xam ne day day maanaam euh, kii bi euh, euh, jeu bi dafay nekk ci loxoom mm-hmm. léegi sénégalais boobu dafa am pour ñu jàngat lu tax mu def choix ci Pape Diop beneen bi ci topp mooy Pape Diop moom bi ñu demee ba nga xamee ne wax nañ ko ne ko yow rek la ñuy xaar nga def sa choix soo ne waaw ñu sikk la soo ne déet ñu tàccu la moom dafa waroon a jëlaat gannaawam mhm. mu xool ana lan la waroon ak population sénégalaise mhm. parce que mu taxaw na fii mhm. wax waxam ba leer ñëpp teg ci seen bët ñu xam ne kii engagé wu na ci ne man kat ak diw doxalinam te Pape Diop ci Sénégal la bokk suñ culture buggul fenn suñ suñ diine buggul fenn te yooyu yëpp dafay dafa dafa engagé wu ci kawam. Mm-hmm. ñu sénégalais soo nekkee mag. Mm-hmm. dafa am benn bët bu ñuy xool ku nekk mag nekk sénégalais. nga wax lépp ñu gis ko. Mm-hmm. nga wëlbatiku amaat beneen situation bu taxaw. bëgg la obligé yow pour nga wax beneen sens bu bokkul ak li nga xam ne moom moo dëppoo woon ak yow li nga waxoon balaa ngay jël décision di di sa kàddu gi nga xam ne yow moom nga waxoon ba ñëpp gis ko mm-hmm. dafa laaj nga toogaat fexewaat jàngalaat nit ñëpp mm-hmm. lan moo waral nga war a def choix bi mm-hmm. est-ce que choix bi am am na pouvoir sànni li nga waxoon yëpp ndax bu boobaa li nga waxoon dañ koy peser si côté diine peser ko ci côté sa diggante ak sa borom ne yow jàng nga boo xam ne borom bi moo la joxoon ay ay directive ne soo waxee nanga sàmm sa kàddu jox la nga nga d'accord bokk ci diine boo xam ne diine jooju dañ koy danga war a exécuter li diine boobu wax nga bokk ci ethnie boo xam ne mooy wala ci réew moo xam ne seen jikko baaxoowut mag wax bañ gis ko mu wëlbati ko def lu uutee lam waxoon kon da gis ne mm-hmm. moom waxam dafa nekk loo xam ne ci suñu culture réew ñëwuma ci soit bi mu def dem ci pouvoir bi ñun sénégalais yi laay waxal man man mm-hmm. man dama taxaw taxaw sénégalais taxawuma taxawaayu opposition taxawuma taxawaayu pouvoir mm-hmm. dama taxaw taxawaayu sénégalais ci biir sénégal mm-hmm. nga xam ne mag sénégalais lambda buy expliqué ndax xam ne dañ koo gaañu wala dañ koo tooñ wala dañ koo def loo xam ne bëgg ko jërëjëf loolu laay bëgg expliquer xamal na mag mhm. dafa am bët buñ koy xoolee kaddu mhm. dañ koy sàmm mhm. euh, soit dañ ciy sukkandiku ndax des fois nit dina dem ci urne bi votel nit parce que engagement communication mooy tax mu moo koy moo koy influencé des fois nga gis nit ki dinañ ko votel c'est parce que ligne bi mu jël mooy tax nit ñi mooy influencer nit ki. ba tax nit ku demee ci urne bi. day xool kii kat idéologie bi mu yore. ak jikko ji mu yore. ak ligne bu mu am. Mm-hmm. mënu ma woteel voteel kenn ku dut moom. jërëjëf donc soppeeku googu nga xam ne dinañ koy soppeeku. Mm-hmm. te duñ ko duñu ne bàyyi xel seen ginnaaw. duñ bàyyi xel population bi jàkkaar lañ ñoom. Mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ne lu catastrophe la ci Sénégal. jërëjëf dinañ loolu ñu war a bale war a bale catastrophe boobu dinañ ñëw xool naka la ñuy def arrêté ko puisque catastrophe boobu bu continuer fi mu ñu jëmee baaxul. Cheikh bi euh, Cheikh Oumar ñu ñëw ci yow ah tey politique dafa war a ànd ak jikko ju rafet lu waay politique politique rocc ci jikko ju rafet dafay mel ni sénégalais yi dañuy wàccu ñu baal ma ci kàddu gi ma wax xoolal lan la fi président Macky Sall tabax tabax na fi lu ne mais tey boo seetloo tabax bu mu tabax bu demee élection mel ni musul tabax kon ndeke sénégalais yi du tabax yu jóg yu ñuy gis di ci yéeg lañ soxla waaye nga tabaxal leen jikko dafa mel ni loolu la ñuy laaj te politiciens yi dafa mel ni ñoom joxewuñu nopp bi ñuy déggee loolu tamit foofu taxawaay bi lan la war a doon pour politiciens yi ñëw tolloog dañ am décalage senegal yi fi ñu leen di woo ak ñoom fa ñu ne du benn parce que dañ naan la tabax naa tabax naa maa te lii fekk yow li nga tabax am na loo yàq muy ngor bi te ngor ku ko yàq ci réew parce que réew moom. waaw li am na solo jàngat bi war na gën a xóot mooy lu tax mu war a gën a xóot mooy kii dafa wax ne euh, suñu mbokk bi. maa ngi déglu Cheikh Fall Cheikh Fall dafa am benn analyse mu def. Mm-hmm. te analyse boobu analyse bu am solo la. Mm-hmm. dafa dafa cohérent ak yow li nga wax nii. Mm-hmm. mu jëm ci population bi. Mm-hmm. population bi ak euh, politique euh, ku jëm politique bi. ñu mu wax ne benn kuréel la. kuréel googu dañu nekk dañoo am ay carte d'identité nationale. sénégalais. mais ki nekk ci biir yaram bi. kooku ma Maké Machiavel la Machiavel la. ruux li ne seen ruux. mooy mhm. bi. Mhm. ki nekk ci seen biir yaram. Mhm. kooku Seydina Muhammad la. sallallahu alayhi wa sallam kon bokkuñu. ñaar lii moo tax. waa kër Machiavel dañuy sañ a def lu leen neex. population bi duñ ko sañ. parce que population yi l'islam la ñuy dund. seen seen gëm-gëm dafay tere fenn. seen gëm-gëm dafay tere. lekk loo moomu parce que loolu la ñu siy naan moom saa sam jàngal seen gëm-gëm dafay bañ noot nit. seen gisaanul xaal da leen koy tere da leen koy tere donc ñun ñëpp ñi nga xam ne ay sénégalais lañ. nekk ay julit l'islam biñ bokk nekk te yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, eh, ki yar ñu ci. ñu judd ci am ci ay ñeent fukki at juróom fukki at juróom benn fukki at yëpp ñu yaru ci diine jooju. léegi mu am benn kuréel goo xam ne boo leen évaluer matuñu six cent mille personnes mm-hmm. te depuis euh, des temps mm-hmm. ñoom ñooy gouverner soixante ba léegi mu ne sénégalais yi nañ gën a kii xam nga ñoom dañoo yëgut ne mm-hmm. Machiavel mu ngi dem politique bi mu ngi dem xam nga boo ko bëggee jàng fa nga xamee kenn mu mënatut a yor parti yow kot gañe dara sa coalition rek ngay def xam nga lu tax coalition mooy. mooy xam nga lu tax coalition mooy gañ. xam nga lu ko tax coalition mooy gañ. Mhm. mooy population bi mu ngi dem vers ñoom mu ngi leen di tënk. Mhm. ñu ngi ñoom dañoo actuellement dañoo étouffé wu. Mhm. moo tax bu mu bëggee raisonné wu. ay tabax lañ ñuy wante tabax ak li idéologie maanaam li xew. ay tabax du ko tontu. soo leen defaloon gratte-ciel. ba dëkk bi fees. ñii ñëw sa kaw. gis nga ku jegi kuy politique way politique yi ñoom ay tabax ñoom la ñuy gis mais waa kër Seydina Muhammad gisuñu ay tabax ay jikko lañ gis ndax yéen saa salaam bi ko yàlla di tagg gis na fi yaayam gis fi baayam gis fi xam-xamam gis fi askanam waaye yàlla yëpp dafa tegee na le na ko innaka la ala xuluqin adiim léegi nag ñun ni nga xam ne waa kër yonent lañ sallallahu alayhi nga xam ne idéem la ñuy addina moo ñuy jox raison moom la wax ne doole moo mën dëgg mm-hmm. waaye dëgg mooy mujj yàgg dëggay mujj yàgg-yàgg dëggay mujj mm-hmm. léegi politique politiciens yi mm-hmm. population bi ñoo leen di di lañu leen di presse yi ñu leen di gën a tànc tànc bi leen di tànc moo boo xoolee élection yi mën nga comme ni mu ko waxee léegi mën nga gagné législative local bi mhm. nga dem ci législative yi nga nga dem ca nga dem ca euh, dem ca ndox ma la xool le cas de Bamba Fall à gis nga ko uh-huh. donc kon population bi am nañ benn kenn ku leen yar ba pare d'abord mhm. koo xam ne léegi moo leen tabax mhm. ñee Machiavel moo leen tabax joxut leen lu bees joxut leen ay ressource joxut leen ay gis-gis joxut leen doxalin daf leen waxoon ne fexe leen ba jël réew mi mhm. ngeen toog ci ba doyal dem mhm. lu rek la leen waxoon amul leneen luñ ciy jàngat mhm. amul dara luñ ciy jëlee amul dara lu luñ ciy donnee mais yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ñu jox ay gisin ay doxalin ay ressources ay ay ay ay ay yu bees ba pare dit ñu même buñ deewee sax dañuy amaat dara macha allah kon gis nga duñ bokk gis duñ bokk gis te léegi ñii ba du set yastawi alladina yaalamu walladina la yaalamu la gis nga duñ yem léegi nag fi ne nii lu mu yàgg-yàgg bu leen yàkkamti mhm. man maa leen ko wax lu mu yàgg-yàgg-yàgg mhm. euh, euh, euh, doomu doomu boo ko waxee léegi lu neex a dégg mhm. mais doomu daara mooy téye réew mi xam nga tax parce que bu demee ba nga xam ne léegi ñoom tànk nañ leen ba amatuñ bunt buñ génnee parce que mondialisation bi léegi moo tax ku mu neex wax loo bëgg a wax ku nekk sañ nga léegi wala sa gis-gis mhm. ku nekk sañ nga am nga sa sa idéologie nga imposé ko mhm. nga doxal sa gis-gis mhm. loolu mu ngi gën a dem te léegi nit ñi ñu ngi màgg change situation yi ñu ngi gën a empiré nit ñi ñu ngi avancé boo xoolee léegi ñii laaj euh, réew mi autant sañ ko woon xalaat sax di ko waaw ay analyse yu mel ni yow génn si daara ji. gis nga ko ñëw di analyser di analyser effectivement donc lii nag fii ñu jëm ñoom ñoom ñii. mais am na si ay doomu daara tamit yu juum ci diggante. ne dañu ci juum waaye gis nga ñii gis nga lii waxaat la leen mm-hmm. yi. Mm-hmm. catégorie PS. Mm-hmm. PDS. ñooñu dem nañ bu yàgg nit ñi yëguñ ko. mais gis nga libéralisme yi. ak li nga xam ne mooy socialisme yi. dañoo muus. dañoo muus muus boo xam ne. Mhm. boo gisee su maam maam Abdoulaye Wade. Mhm. ne fii ak cinquante ans. Mhm. ñoom ñooy gouverner. mën na fa bañ a egg. mën na fa bañ a egg parce que benn il suffit que benn erreur am. rek da ngay gis ñi ful bi ñëwoon jëm ci seen kaw. këpp seen kaw. benn 22 ans moom amagum nañ ko. amagum nañ ko mais mën nañ am benn tarxis rek ful bi yees ba tax actuellement nii population bi ñoom ñoo soxla gouverner. léegi politiciens yi nekkatuñu ñooy gouverner léegi population bi mooy imposé wu léegi mode de gouvernance bu bees loolu laa bëgg a expliqué